cinq milliards yoo randal alalu réew mi fayoo ci benn impôt jaay ko encaissé ko def ko ci sa poos di ko lekk yow képp bàyyi taalibe Sëriñ Tuubaa yi boo noppee nag yow yaay wëlbatiku ñëw amaat le kilo ñëw toog naan leen wuy bu leen fonk politiciens yi bu leen am fanatisme ci politiciens yi ndax ñoom ñëpp a yem bu ngeen di am fanatisme wala ngeen di am ku ngeen di bëgg ku ngeen di am fanatique na doon yoonu Sëriñ Tuubaa li Sëriñ Tuubaa jàngale ay waay lan la ñuy am fanatisme ci Serigne Touba lan dama lay laaj lan la Serigne Touba jàngale Serigne Touba est-ce que jàngalewul ñu bëgg réew mi Serigne Touba jàngalewul taxaw Serigne Touba ñu am dignité Serigne Touba jàngalewul dëgg Serigne Touba jàngalewul ak njub dama leen di laaj yéen taalibe yi waaye yéen ñi jóg taxaw di xeex ci réew mi contre ñi nga xam ne ñoo jël alalu réew mi téye muy Macky Sall ak Bass Abdou rek ñoom ñi mu àndal mafia politique marabout bi yéen taalibe yi ngeen bëgg a dee amuleen lu ngeen lekk maa xeex am ku jóg na man kat damaa dëggal sama loxo set na sama loxo ci kaw am kenn si ñoom politiciens yi jóg na sama loxo ci kaw dafa set mi ngi nii musuma leen a sàcc musuma leen a fen musuma leen a war musuma jël alalu réew mi fi amee sama loxo ba ma ko waxee ba léegi kenn mustu ñëw taxaw na jël naa alalu réew mi sama loxo ci kaw damaa set wicc maa ngi nii ban dañ ku ku mel na man yëkkati sa loxo koo wax loola jëfee ko doxee ko ba sénégalais yu bari taalibe Serigne Touba ak El Hadj Malick yeeg ñoom ñëpp ñu ci bari gëm ko ànd ak moom di ko dooleel ngir bëgg réew mi tàbbi ci ay loxoom ëllëg ngir bu tàbbee ci ay loxoom kenn ku ci nekk la nga yelloo ci réew mi fekk si la fi la nekk dëgg taxaw la alaaji malik bëggoon sëriñ Tuubaa bëgg ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Seydina Limaamu Laay mag ñu baax ñi gën a yi bëgg ba di leen warmaal yéen ngeen leen di nax ci kaw bëgg gi ñu bëgg mag ñu baax ñi ngeen leen di noggatu di lekk seeni alal di leen nax ak fen ànd ak Macky Sall di sàcc alal réew mi luñ jàngale lu dul loolu nga ne léegi nañu pare pour dee ci loola waaye bu ñu paree ci xeex ànd ak politiciens yi bu ñu gisee politicien bu jub boo xam ne am na taxawaayu Serigne Hadj Malick am na taxawaayu alaaj euh, Serigne am taxawaayu Maolana Cheikh que foofu lañ toll léegi dañoo am ay leader de politique yoo xam ne léegi dañoo am taxawaayu mag ñu baax ñi ci njub ci xam seen diine ci bëgg réew mi moo tax xale yu jublu leen bët ba ñuy xoolee Serigne Touba di ko xoolee Alaaji Malick Si ci njub ak baax bët boobu la ñuy xoolee yenn leader yooyu nga xam ne tey ci biir langue politique yi dañoo ñëw di jubal di dëggal ngeen na bu ñu leen topp yow Bass Abdou Khadre nga ne ñooñu bu ñu leen topp topp ko ñu yow yow Bass Abdou yow yow doo royukaay doo toppukaay doo royukaay li ma xam ci yow bu ma ko tax a wax. ma tax wax doo royukaay Macky Sall moo lay yónni nag nga dugg ci banlieue Pikine bi ba nga nax taalibe yi xiif loo ngeen leen ba ñu xiif mar loo ngeen leen ba ñu mar. toroxal ngeen leen xañ leen seen alal xañ leen lépp amatuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñi ci banlieue bi ñu ngi bëgg a dee ñu nekk Touba ci cancaana ñu ngi bëgg a dee xiifloo ngeen askan wi yëpp askanu Serigne Touba rek Alaaji Maalik jii ñëpp xiif ñëpp sonn kenn mënta faju ngeen toog ca kaw yow Macky Sall yow Bass Abdou Khadre yéen sëriñ si yéen yenn marabu yi yéen ñi fi nekk di dund laa waxuma ñu deel ñi fi nekk di ak ñun ngeen teg seen système seen mafia jël alalu réew mi aaki moo ko téye ko nappaaje seen i jeeg ku dee seen yoon nekku ci bu ngeen paree tànt seeni tànt woon woo ñi ngeen xam ne nappaaje ngeen leen ba ñuy bëgg dee di leen nax ci turu Serigne Touba ci turu Alaaji Maalik ci turu diwal diwal diw ba kañ ba kañ